tey ma taxaw boo xam ne champion bi noonu yoo wax moom fi mooy fan kilifa général. waaw la. Fallou Gueye la. Fallou. Fallou Gueye. Fallou Gueye bergerie. bergerie Mohamed Dabo fu mu nekk. mi ngi nekk Cameroun 2 tey ngeen ñëw def ñaari box. jàkkaarloo fee ma gis fa ay jeune mâle fii ma gis fii ay femelle ak benn mâle noo ma ko yi ma ko teetalee ak waaw oh, xale yi xam nga mun naa ne danoo ñëw pour exposer bégal gars yi ak ak ñi nga xamante ni càmm gi ñor na leen ak ñu bëgg dugg si càmm xam nga ku ñëw xool fii gis lu ñu exposé fee si jeune mal xam nga am na ñi nga xamante ni danoo am problème mu jeune mal te jeune mal yee ñoom ñëpp am sang ah. ndax yii doomu papa la papa sut Abdou Fall la teg si papam surtout macha allah papa Massoum Mbodj ba ñaata jeunes mâles cinq wala six. six trois yi la papa jur yeneen trois yi Soulker moo ko jur. Soulker Soulker doomu roi Basir la. yow yaa ko yoroon. yéen a ko yoroon. waaw ñu ñoo ko yor waaw. Ah, mi mi fa ba léegi surkel. ba léegi surkel mi ngi fa papa mi ngi fa. ok ñoom ay doomam lañ. ay doomam lañ waaw. ok macha allah ñoom ngeen indi pour exposer ko. exposer leen waaw pour pour def si ay prix yu xéwale pour jox ko gars yi si bëgg tamit. macha allah waaw ah, partage loolu am solo la. xam nga loolu tamit euh, dafa bokk ci élevage ngeen ñëw tey salon salade saladam bi. indi egg box boo xam ni indi ngeen ay doomu xar yoo xam tey nit ñi mënoon lañ leen dem leen seet lu ñu leen gis ngeen indi wan leen ko pour jox ko gaay loolu am solo la mu nekk 6 est-ce que am na yoon fi jot a jaay waaw am nañ fi jot a jaay ndax jaanan fi ñaar benn bi soo xoolee doomu sulkeer bu weex bu ma doon jël sànq lañ lañ jël te croisé ko si papa mu jur seex mais bu jigéen bi dafa daanu bu góor bi lañ indi boobu jar na beneen bi dañoo jël benn doomu faaris bu jigéen teg ko si papa mu def góor moom boobu tamit jar na. ok lañ toll. saa yooyu ñu ngi ci mois. ñu ngi 5 mois waaw waaw. macha allah mu euh, kon kon carte yoo xam ne tey euh, tey même ko bëggoon mën na leen fekk seen bergerie waaye tey exposition bi lan la fii lu fi nekk. fii nii instant yi soo xoolee am na benn jeune mâle bu doy waar sax doomu papa la moom ak seexam mi ngi fii ak yaayam ak benn magam ak beneen doomu baayu magam bi ñu ngi fi jeune mâle mi ngi si douze mois añoo la añoo la nii añoo la waaw ah, waaw añoo la gis nga de dégg papa amélioration la quoi moom moom douze mois euh, tey euh, dugul concours non dugg na concours ah, dugg na concours waaw mook seex bi yëpp dugal na leen seex bi cheikh bi moy bu mooy bu jigen bu am tek bi bi nga don jël sank mi lek ci kii bi waaw ah, bu ñul bu ñul bi waaw boobu mooy seexam ñom ñaar ay cheikh ñaar lunette yi waaw way cheikh waaw parce que tamit añal bu rafet la bokk wala ñom papa ñom la tawlo quoi gette ga ah, ñom la ñoo fay tawam waaw ñom 12 mois ñu ñu mu dugalee kii añal kii añu waaw ki añal ki añu ta am nañ ci yaakaar nak ok ñaari ñaari ñaari xar nga duggal ci concours waaw ñom ñaar rek lañ duggal ci concours bi quoi waaw yeneen yeneen ñaari xar nak be tête nuit bi nuit bobu espoir la mom waaw doomu doomu sulkeer la waaw borom corne iya, loos bi lu maroon non moy sen yaay ah, moy jur bu wex bi doomu sulkeer bi jul cheikh yi waaw ah, ci ci papa ci papa waaw mais bu wex bi mok sulkeer ñoo ko jur waaw ki nak ki doomu sulkeer la ki doomu sulkeer la ki ñaar moo la instant yi nii mi ngi ci 19 20 mois quoi espoir la ah position ah. bi rafet na yéen defe naa defe naa daje woon nañ tëngéej waaw ñëwoon nañ tëngéej waaw ñu def eh, machallah euh liggéey bu am solo ma gis sulkar nek mal bo xamni tay production bettuma parce que ba ma ko fekkee Tëngéej gis naa ko euh, ci ci mu nekk maal boo xam ne am na taxawaay waaye am na ay maturation yu doy waar tey liggéey bi fan la jëm bergerie euh, daaw tey la euh, lan ngeen bëgg a liggéey ci Lambaye isaan yi noonu bëgg liggéey si élevage yi nga xamante ni ku ñëw ni jàkk xam nga élevage daal toll fi nga xamante ni moom jàkk la jàkk waaw soo nee jàkk rek da ngay bëgg balaa ngaa laaj fu mu bokk voilà ñun isaan yi looloon bëgg améliorer quoi liggéey ko waaw di jël si doomu sulkeer di ko croiser si papa su génnee ñu jël si doomu papa yi croiser waa si sulkeer xool amélioration bi lu muy def ah, loolu moom stratégie bu xar bu complet yombul mais looloon bëgg liggéey incha allah si kàddu yàlla papa ak sulkeer lan mooy seen ku nekk lan mooy Soulker dafa fort si LCS. ak Bote. mooy Saalum bi. Papa moo fort si hauteur. ok soo jëlee xar bi nga xamante ni mand la am LCS bu doy nga ah. tekk si Papa mu kiri jël la ko. Ah. doom jooju daanaka équipe bi lii équilibré na. waaw ñun loolu bëgg liggéey quoi te soo xoolee seex yi nga xamante ni lu doy waar lañ fi Papa lu doy waar la fi jóor. macha rafet na trop oui boo gisee kay famille ma fi gis nii euh, yi ngeen ni ma ay añal lañ ak seen mensuration ah voilà voilà liggéey bi rafet na waaye daal en tout cas a Mali euh, gis nañ ko macha allah mu nekk naa ñu koy seetaan tamit bi di jeex da nga ñëw mën a jënd ci ci prix prix waaw ay prix yu xewale nag wax dëgg yàlla ñaar génn na. waaw si jeune Mali woon ñaar yi jar na. waaw instant yi mi des quatre quoi. gaa yi ngi ñëw di waxaale ni mais ku ñeme rek soo ñëwee ñu jox la waaw ah, seerul moom wax dëgg yàlla adresse bi mi ngi nekk Cambérène 2 villa numéro 40 41 uh-huh. waaw 77 608 56 88 beneen bi beneen bi 78 603 57 kontaan ok jërëjëf waaw waaw mbokk sama gaal gis nga ñu ngi bëree bergerie Dabo eh, gis nañ jël nañ xale ñu wax ci xar yi macha allah gannaaw ngi ci saladam eh, noo gisee saladam bi ak yow ñaata yoon nga ñëw saladam salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ma ngi leen di nuyu waa saladam ak ñi fi nekk yëpp di leen di wax man la première fois la première fois ma hmm. wax neex na Euh, yàgg naa ko fekkee mais mosuma ñëw xaw ma woon ne nii la mel. ok waaye daal wax dëgg yàlla kontaan nañ trop. Hmm. wax dëgg yàlla indi nañ fi xar yu ayib. macha allah macha allah wax dëgg yàlla ay seen maal ak yu doy waar daal. waaw am na fi yeneen yu san yu neex wax man trop daal kontaan naa macha allah macha allah ah, kon daal gis nañ xale yi nag nañu xale yi rafet na ah, production bi rafet la kon boog euh, ñu ngi ñaan yàlla bés xanaa ñu kër ga nag wala am nga ñu incha allah waaw loolu moom bëgg naa ko sax xam naa bu pare da ngeen ñëw kër ga après ñu ñu ñu wan leen am na yeneen yoo xam ne sax ñoo gën a garaaw yi. incha allah waaw indi nañ fi ay sënmal parce que ñun ñoo am euh, sulker doomi waa Basir ak papa ñaari doomi Abdou Fall moo ko jur. moo tax gars yi comme gars yi ñi ngi ko doon laaj bu yàgg ba léegi indi sulker indi papa nangam nangam. te man wax dëgg yàlla daaw ma dugg sax ci affaire foire. waaye yëf yi moo fa toll. gaa ñi sonal ma ne ma foog nga génn foog nga génn. moo tax daal ma ñëw. bi ma ñëwee indiaale seen maal yi. ay doomi sulkeer mi ngi fii. ay doomi papa yu mucc ak yow ay wax dëgg yàlla gaa ñëpp nangu nañ affaire yi. wax dëgg yàlla gaa ñi kontaan nañ wax dëgg yàlla nangu nañ ne li ñu indi daal macha allah. waaw kontaan nañ.